taxawal taxawal taxawal non gars yi wax nañu photo dafa am mais su gën a taxaw day accéléré. Thank you. personne ne peut rien lii kenn mënu ko. gars yi wàcc leen damay accéléré oto yi. ah accéléré bi ñu wàcc ma vous remercie wàcc leen wàcc leen président président. jo day def day defar de c'est ça bi daa diis jo jo toogal saa su accéléré dañuy ñàkk su bañu Yap, yap, yap. président de la Yëkkatamoo neex na le président de la liberté സാറേ സാറേ എത്തിച്ചിട്ട് സാറേ Thank you. joo saa day day jub waxal ak gars day jub te day jub day accéléré dafa accéléré yéen day yëngu jàpp leen jàpp leen bu baax. ñun soo ko bëgg amal njëriñ ah. xale bi moom soo ko bëgg. taasu leen ko Macky dee na Macky dee na suul leen ko Macky dee na Macky dee na suul leen ko Macky dee na suul leen ko Macky dee na

dem leen foofu Ah! maire kon dañ di wax ci yéen ngeen yëpp comme ça seen gars yi taw ko dañ koy gunge ba ko di ci bi o dañ ko rek dañ ko dañ ko man maa la ñaan loolu def leen li ma leen wax wàcc leen quoi gars yi on descend on descend Thank you. uyu leen ko fële. sàmm rek leen ko non non non policier bu ñu ko non pour ma gën a non non rek bu ñu yóbbu gars yi si policier voilà ça dépasse même la police c'est idéologique ça dépasse même la police C'est le plus important. C'est le plus important. C'est un, un, projet pour nous. C'est pas la personne, c'est pas son projet qui est projet.